ak bépp xalifa waaw bu loolu weesoo nag maa ngi sant suma entraîneur yëpp ak sama boy lutteur yi tey gis nga leen bu ma limee rek yaa problème booy yi ak man yi tey yëpp ak suma grand frère yi nga xam ne ñooy staff Bawol mbooloo tey dañu pare woon pour feesu fees mais li xaw ni ñun ñëpp a ko gisandoo man comprendre ma yéen comprendre da ngeen jékkee-jékkee ay mbër yuy dem xëy na loolu dinañ ko lijanti ñi yëkëti seen i loxo ne leen jóg leen ngeen ñibbi. après xam nañu ñan la quoi dinañ ko lijjanti incha allah parce que ñun dañu signé ay conda ay ay ay contrat yu leer. donc signé nañu am open press signé nañu fess fess mu nekkon tay donc kon ñun def nañu suñu maximum quoi ñun bir maintenant fi lañ dëkk fi lañu foy fi lañu defe suñu lépp fi la defe suma ay combat yu ndaw comprendre non mo jaaxal ñëpp man dama jékki rek ñuy dem ñuy évader xëy na ñoom la concerné. man li ma waroon def naa ba ñëw naa ñëw naa taxaw mais naa la wax laaj leen promoteur bi moo leen fi woowoon woo fi nit ñi ñëpp ñëpp ñëw nañu ñëw nga booy ñaa ñëw na mbër yi war a bëri ci bés bi ñëw nañu seen cortège ñëw nañu takk nañu ticket lan la promoteur bi mais bien sûr mais bien sûr li jaadu woon tey ñu jàllale message bi tey ay yére sponsor lañ sol lii nii tey bu ko euh, bu ko borom bi gisee du ko neex neexul cuun suma agent bi signé affaire bi ñoom papa ak suma entraîneur yëpp neexu ci kenn ak leader yëpp li xew ni man xawma la lan moo xew non man moom wax dëgg yàlla ñëw naa rappelé naa suma contrat contrat bu ma signé woon la combat ba nag ñëwagut des na ay quelques jours le jour si nag damay ñaan yàlla yàlla na ma yàlla may ndam si kaw booy ñaan ya, yan leçon nga tiré li tafa yan leçon non li xam ci yàq lam la bokk quoi xam lam ji ni ñaa naan am na problème xaw na jékki organisé lu mel ni nit ñi daj seen i ticket yi teew ay autorité ñëw teew xam nga ñëw dem man bi may ñëw maa ngi déggante ñu ne ci état bi ñu bëri ay ñoom Mor Ngom ay ñoom Pape Mayel ma leen di nuyu. kan moo bi. faute bi kan la non loolu lu ñuy lijjanti la loolu ki ko def dinañ ko xam kan moo leen wax nañ dem ñibbi. Hmm. après nañ ko lijjanti quoi. Tapha Tine il est là maa ngi ni toog jàkkaarloo demuma fen man fii laa dëkk comprendre nga woote wu ma dara yàq. macha gii laa dëkk taalibe Serigne Bamba comme ni mo koy wax awma dafa dafa mel ni xol dafa dafa xol neexul. ci li aw ma dara lu may tiit comprendre nga. mais li xew ni man neexu ma quoi. mais Tapha. parce que mënuñu signer contrat depuis tabaski daw bi mu déssé 1 mois ba léegi. ça bu ñu defee fees fees y'a problème. ku la neex na dalay nax quoi. mais Tapha dañu waroon ñëw xam nga jàllal lii mu jàll ñu dem ci leneen quoi. lolu mo waroon no jangate li lan lay la important la quoi pour man ngeen nangoo ñu faral waaw mais tabatin tabatin waxal ak say nit nga xamal leen lii ñuy def nii nga déglu ñi li ñi liñ lay laaj say ñooñ tamit déglu ñu waxataan ak yow. waaye ñoom ñoom ñoom sumay grand frère lañ dañu xet ci Tapha Tine rek mais leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm. franchement taxaw bi rafet na fu Tapha Tine gis nga ban heure moo jot ñu ngi ak Tapha Tine nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg ñu ngi ci lu ne quoi ngir Tapha Tine am ndam kon alhamdulilah quoi. yee. parce que gis nañ sa gis nga ko gis nga gis na la. ki nga man man man xaw ma lu mu pare man li mu pare laa xam ak li ma liggéey. combattant laa boo xam ne def naa 16 ans de carrière 17 ans xam nga kon aw ma lu may tiit champion bu ne daje naa feeg moom luur bu ne daje naa feeg moom daan kon du ay booy ñaam moo may jaaxal ci ay fees fees wala ay combat ñu taxaw ci ring maak moom yee bu loolu weesoo nag maa ngi sant képp kuy def mokrate armation mokrate képp ku koy def maa ngi lay gërëm di sant aussi suñu sëriñ loolu lan la loolu lan la Mbaye Gueye képp ku koy def en tout cas maa ngi lay ziar ñoom ñëpp voilà exact non Sakandé naay Sakandé tax kibit nineteen day mu ngi fi day existé yeah mais tey gars yi niñ la tare ba gis ñëpp tar la non loolu lépp bawol la ak ak ñi bëgg tafaatin dëkk ay Kajoor ak Saalum ak xam nga Siin Saalum fépp di nuyu sama mbokk séeréer yëpp tafaatin ñëpp ko bokk Siin sappone yeeg tout américain yeeg yëpp may sawdab ñëpp ku mel ni booy bawal nag maa ngi koy sawdab bu baax depuis États-Unis sama bro la yenn saa yi moo ma grand manqué woo wala lale sama bro la ay ñoom wuli wuli dee saay saay la moom lay garaaw loo yëppante loo yëppante non aw ma aw ma barke Seexul lu ma ko doon wax tey dañu waroon jàkkaarloo wax ma moom audace bi mu am bu ñew pigi joge pigi ñew taxaw fi waro na am audace taxaw ak lu mon xew quoi man xawma lan mo xew mais waro na mëna taxaw ak lu mon am ñu changé bu dee ñaari cadeau xam sam sponsor ku na dem quoi mobilisation bi parce que non gis non gis ngeen ko man la ma leen waxon du deñ comprendre nga ah. ku ne xam na man sama fan ci club bi gëna mag mu ngi buntu pikin dañuy dox ñew esat loolu la leer na ah. duñu jël car duñu jël set place duñu jël taxi dañuy dox ñew esat loolu dafa leer. déggoo li ma la wax sama fan si club bi gën a mag mu ngi buntu Pikine. ci Bawol Bawol Paku Lambaay loolu kay leer na. ah dañuy dox ñëw. jërëjëf thank you. yow bu dul woon bi naa la defal Babacar. moytu